école yi jàng euh, yi petit fait yi beau petit fait qui qui va venir doit s'accoyer tout rose et tout nu puis puis puis puisque ça que tu payes pourquoi je ne vous tombe pas i i i chrétien chrétien chrétien chrétien chrétien dans mes sa tête doucement tey tey ju sama. xale bu góor bi. tey tey stop. na nga def ça bien. sama baay jënd ma ci boutique bi boisson. boisson. waaw. yi ma naan. loo jënd rek baax na. Eh, sama nëb. loo jënd rek baax na boo ñëwee nga fekk ma ci biir maa ngi ci biir kay. Hmm, ci biir kay gi ah. waaw. si sa nax.

Gisa nga boo weddoo li mu neex bëgg hmm laa pa utal paaka bo boo nank day bo xottee dënd bi da ngay gañ sa bok kon ma ci kaw. gis na gis na fidèle. mom fidèle. xam nga gog ñu mom fidèle. fidèle fidèle. la ngi tedd fidèle seet. fidèle man ma ko ñu naan fidèle ndax ma tok 50 ans tok réglé. déggal li sama boto yee daw ci gëj léeg sama employé jigéen ñi top ma di ma doxal ma bañ ma tedd ci laaj mun naa am chéri daal damay rey nii. li ko nekk naan na ma rey. te yow na naa medd. entrez. entrez. trois mille deux cent cinquante. lan la. yow. lan la yow. jëlal weccit bi. jëlal jëlal weccit bi. dem kay paa yaa dem kay paa yaa. Eh, am bi waay. Eh, sama kii papa nga dee. jëlal maa naka. sama kii papa nga dee dee. waaw jëlal rek. am rek sa nekk sama xarit. paa yaa kii wax dëgg yàlla. kii sa kër yàlla papa. <laughs> kii de si koñ bi laa ko fekk. papa. waaw. mooy sama papa kii. Eh, eh, eh, papa laa dégg yow xorom ma de kii xorom ma de. kii nga xorom ma papa. mais waaye xam nga dama doon wax de fu ma la xamee. kii amul jabar amul doom nga ne sa papa. kii mooy sa papa man ah man ak caat ak sama yaay sama yaay avorté na ñaari yoon kii mooy sa papa. li nga wax dëgg moom jur ak caat ak sama yaay sa yaay da laa lay juree jur. may la sama jàmm laa la wax. bu ma fontoo de kii li muy wax xam nga ka laa la wax. waaw yow xam xam nga ni juróoma la. yow nag infidèle bi ñuy wax moo nekk ci yow. may nga toog ci sànq bëri naan fidèle fidèle yow da nga xam lan mooy fidèle. nekk yow yaa raw sax infidèle. yii yii deux cent dama fidèle. yii deux cent yii yii yii ñaari ñaar déw yii fukki déw. kii dafa doon yii dafa doon. yow yéen a tey xam ne ah sama yow ngeen doon foofu. barke rabal alamin xool ma xool xool ma bu baax xam ne man jànku paa. ah jànku paa maa fere.